سقياها فكذبوه فعقروها فدمدم عليهم ربهم بذنبهم فسواها Allah شتى فأما من أعطى واتقى وصدق بالحسنى فسنيسره لليسرى وأما من بغي واستغنى وكذب بالحسنى فسنيسره للأسرى وما يغني عنه ماله سوف يرضى الله أكبر سمع الله لمن حمده Allah السلام boobu ñu ngi koy sant ndax moo ñu may jàppalal farata bi ñu mottali ko ci jàmm mooy woor weeru koor weer wi nga ne weeru yiw la weeru barke la kon ki def loola moo sàkk li fi ne te moom ko te mooy buur te moo yore kàddu te ci moom la ñuy mu faatoo yàlla day ku màgg kon buur boobu yeeyoo na mu sant ko kon ñu koy seedeel ne moom dong moo yeeyoo ñu jaamu ko nguuram gi bokk ko kenn kattanam bi bu fës la bu matale la ñu koy seedeel it kii mu tànn mu doy ko doy nañu mu yonent bi sallallahu alayhi wa sallam ki ñu dox melokaanu dëgg wóor ki ñu yónni ngir yërmande ki ñu yónni jox ko njub jox ko diine ju ju leer kooku day ngi ñaan borom bi subhanahu wa taala na julli ci te na ko musal moom ak yi sahaaba ak ñépp ñu ñëw ci gannaaw ñooñu te rafetal seen roy te ñooñu daal di seeni diine mbokk jullit yi bés bii day mooy bés ngir ne weeru koor jeex na bés boobu la moo ñu dajale tey muy xéwal bu baax boobu ñu borom bi defal mooy woor weeru koor dal di naafila def tahajjud yooyu yëpp borom bi wa taala def ko ay symbole yu muy joxoon nga xam ne day dajale ñi gëm borom bi wa taala ci ay béréb ñu koy jaamu loolu lu muy wone mooy nangul borom bi sellalal lu muy wone mooy am mbégte bu nekk ci biir xol kon kii ñu ko baaxee di borom bi subhanahu wa taala yeewoo nañu dal di ko sant dal di ko jaamu ndaxte mbir yooyu nekk na mbir yuy wane bokkoo àndaloo ci pas-pas ci oyofu islam ak ku yombam ak ku rafetaayam moo ne màggaay bu màgg bi nga xam ne borom bi wa taala jagleel na ko xeet Muhammad sallam borom bi ne man day yi ma nangu ci yéen mooy lu yomb rek lu yomb rek bëggal ma ne lenn lu jafe waaye bëgg naa nag ngeen mottuli lim bi ci jàmm ngeen màggal borom bi subhanahu wa taala ci lim leen jubal ndax ngeen mën sant borom bi moo tax ñuy wax allahu akbar allahu akbar mbokk jullit yi ñun day ci bés bu màgg bii war nañu ñu sant borom bi subhanahu wa taala borom bi ñu sàmm aar ñu musal ñu ci ay jafe-jafe musal ñu ci ay fitna yu matale te lu yàggut rek borom boobu daal di ñu nattoo am mbir moo xam ne sonnal nañu lool lool lool lool mooy corona daal di ñu sonnal lool nga xam ne mbir moomu taxoon na yële bi yëpp yëpp yëpp daal di taxaw mbaa lu ca ëpp. moo xam ñiy jaar ci jaww ji moo xam ñiy jaar ci jiir ji moo xam ñiy jaar ci géej gi amoon na benn waxtu boo xam ne lépp lépp moo taxaw mu taxawal it bépp organisation boo xam ne dañ ko doon def te diine tax wala mu nekk ay social ay ceeta ay ngénte ay dëj loolu yëpp mu daal ko tere ak bépp daje doon taxaw ngir yaxantu mooy marché marché hebdomadaire yeeg ak yëpp mu dal di ko freiné ak lëpp loo xam ne ci jaar ba saytu mooy ndaje yoo xam ne ay ndaje politique la wala ndaje yoo xam ne ay ndaje culture la wala ndaje yoo xam ne ay ndaje tàggatu la yooyu yépp covid 19 dal di ko arrêté mu nekk fitna mu nekk musiba mu yóbbaale itam ay millions yi doomu aadama yoo xam ne faatu nañu bépp nattuwaay boo xam ne doon nañ ko nattee moo xam nattuwaay national la wala international yépp covid 19 day ñëw changé ko obligé ñu loi yi boppam ak jafe-jafe boppam ak fitna boppam nga xam ne loolu moom dootuñu ko fàtte ci histoire te itam jàpp ñu ne lu mel noonu mos naa am ci kaw suuf ci jàqare ak tiitaange mbokk jullit yi nañu xam ne day société bii nga xam ne ñu ngi koy dund muy société sénégalaise société bu ñu xamoon la ca cosaan mooy société bu bëgg diine société bu sàmm ab ngoram société bu bëgg jàmm société bu bëgg yiw ak këpp koo xam ne ku yiw la waaye nag mbokk jullit yi fan yii day nemmeeku nañ ci biir société bi ay doxalin yoo xam ne doxalin yu juunu la doxalin yu safaanoo ak pas-pasub islaam la doxalin yu safaanoo ak sharia islaamiya doxalin bu safaanoo ak lañu xamoon ci ay jikko ci ay yar ci ay teggiin ci ay nite ci respecté doomu aadama gis nañ ne yooyu daal commencé na di manqué lay fés mooy bokkale yàlla bu fés walla saboté li fi yàlla indi moo xam quran la moo xam sunna la moo xam ay téere yuy delloo nit ñi la wuutalee ko ay bidaa yoo xam ne dañ koo sos ci diine amul benn cëslaay ak jikko yoo xam ne dañu yàqu ak ñaawteef yoo xam ne ci reyin boo xam ne doo xam nu mu mel reyin bu tasaaroo ak bodd ko wante ci ay kuréel mbaa ci ay xeet mbaa ci yeneen yu mel noonu mbokk yi lii dey ay jàngaro la lii day feebar la boo xam ne mu ngi yoot mu ngi dugg ci suñu societé te loolu def ñuy xañ jàmm def luy xañ ñu am suñu liberté looloo tax borom bi subhanahu wa taala teeloon na ko junju mu ne boo xoolee lu bon lu ñaaw fés na ci jéeri ji fés na ci biir ndox mi te dara yóbbuwu ko fa lu dul loxob doomu aadama borom bi ne nag loolu bu amee kon man dinaa walbateku ma mosal leen lenn ci ay jafe-jafe ci ay mbugal ci ay nattu ngir jëf yooyu nga xam ne jëfoon nañ ko ndax ñoom ñu mun a dellu si gannaaw dal di tuub dellu si waat ci borom bi subhanahu wa ci loolu nag ci yoonu tuub boobu ñu ngi dénk bépp jullit boo xam ne mag nga ndaw nga góor nga jigéen nga njiit nga dañ laa jiite ñu ngi leen di dénk lii ngir ñu dellu ci société ba nga xam ne moom lañu xamoon loolu ñuy dénkaane nag mooy ngelawaay ñun ñépp ñii ñu tudd ñépp nañu bokk mooy ci téeréb yàlla bi tudd alquran ñu mooy ci sunnab yonent bi sallallahu mooy ay jàngaleem ñamu jàngaloon nañ ko déggee ña leen toppoon ca loola ba mu yegg si ci ñun bépp jafe-jafe bu amee nañu dellu ci téere boobu nga xam ne laa yaatihi lbaatilu min bayni yadayhi wala min xalfi caaxaan amu ci xawma amu ci dema juum amu ci xamewuma ko nii amu ci looloo tax borom bi subhanahu wa delloo ñu ci mu ne na ngeen nangul borom bi subhanahu wa taala na ngeen nangul yonentu bi sallallahu alayhi wa sallam na ngeen nangul seeni kilifa bu ngeen wuutee ci benn mbir ñii ne nii la ñii ne naa mu ne fa rudduuhu ila allahi wa rasul delloo leen ko ci quran delloo leen ko ci sunna atte baa nga foofu su fekkee ne li ngeen wax dëgg la gëm ngeen alquran gëm ngeen sunna loolu mooy yoon wi gën a rafet te gën a jub ñaareel ba ñu fésal gëm borom bi subhaanahu wa taala fi rububiyatihi wa uluhiyatihi wa asmaihi wa sifaatihi ñu nangul borom bi moomeel ñu nangul borom bi jaamu ñu nangul borom bi ay turam a aki meloom moo tax mu ne ñu indeewuma leen fii yéen ak jinne lu dul rek na ngeen ma jaamu kon nañu jaamu borom bi subhanahu wa taala mu ne képp koo xam ne bokkaale nag borom bi subhanahu wa taala kooku réer na réer bu sori lool yan nañu ci yàlla musal ñetteel bi ngel lawaay nañu fonk nañu taxaw ci ponk yi islaam yi juróom ci ponk yi imaan yi juróom benn ñu daldi ko sàmm sàmm symbole yi mooy bés yi nga xam ne dañ ciy daje te diine dal di ko joxoñ ñu sàmm jikko yi ñu defaraat leen jikko yi ñu muccal leen ayib méngale leen ak jikko yonent bi sallallahu alayhi wa sallam moo tax borom bi subhanahu wa mu ne yéen ñépp tàbbi leen ci loolu udxulu fi silmi kaafa yéen ñépp da ngeen di jël diine ji mais amul damay jël lii bàyyi lii lii laay def tey suba lale déedéet léppam ngay jël loo ca bàyyi rek mu ngi mel ni bàyyi nga lëppam juróomeel ba mooy nañu fonk yi nga xam ne mooy suñuy delluwaay mooy fi ñuy daje te nga xam ne diine joxoñ ko mooy béréb yu sell yi nañu ko daldi fonk moo tax borom bi subhaanahu wa taala mu ne yéen joxabu leen ma sama dayo bés dina ñëw suuf si ma dal di ko ñaag ci sama loxo asamaan bi ma dal di ko lem ci sama ndeyjoor kon maa sell maa kowe lépp lu ngeen ma booleel maa ko raw maa ko ëpple maa ko ëpp kattan juróom-benneel bi nañu sàmm lépp loo xam mooy dëgëral jàmm lépp loo xam ne mooy indi dal ci suñu société bii nga xam ne mooy société sénégalaise kon ñu sàmm la loolu nag responsabilité ñépp la ñépp ñépp du ñu wax kii bàyyi kaa koo xam ne citoyen nga moo xam peuple bi la moo xam état bi la ñoom ñëpp def leen a war ñu dellu ci téereb yàlla bi dellu ci sunnab yàlla bi mooy ci sariyab yàlla bi daldi ci delloo nit ñi te ñuy consulter boroom xam-xam yi ñu bàyyi taaxuraankat yi ñu bàyyi caaxaankat yi ci réseaux sociaux ci ay anam ay fitna ay musiba lu amul benn cëslaay ngel la waay nañu woon ñooñu gannaaw ñu dellu ci ñi nga xam ne dañu am xam-xam yu leer te am lu koy firndeel am lu koy seede ñun ñépp itam ñu daldi di sàlloo muñ ak dal ak teey ak maandu ak dëggu rawatina ci béru bés euh, palaasu attekaay yi ci palaasu attekaay yi nañu ragal yàlla dal di maandu dal gëstu dëgg jaar ca wone ko daldi sax moytu nag xabaar yi nga xam ne ñu ngi koy dégg moo xam ci presse bi la moo xam ci réseau sociaux yi la yooyu ñu fay dégg nañu dal nañu teey nañu def ndànk ndaxte am na loo xam ne boo ko déggee waroo ko waxi feneen waroo koo partager waroo ci def lenn ndaxte ak fitna la ak musiba la ak sos la taqal deru jullit la luy indi wuute la luy indi musiba la kon ki ko wax bu ragalul yàlla yow ki ko dégg moom nga ragal yàlla nga moytu nit ñooñu nga xam ne dañuy génnee fitna dañuy génne ay mbóot dañuy weer ay jullit dañuy diingat ay kilifa loolu day diinal islaam yi bëgg ko te société sénégalaise xamu ko woon kon ngel la nañu seetaat kàddu yi nga xam ne ñu ngi koy wax jëf yi nga xam ne ñu ngi koy jëf ñu teg ko nag ci balaasu islaam ñu sori lool xeebeel diingat teg ci derub nit lu fa amul wuutal ko dàkkental bu mu yorewul ak ñaaw njort ak topp nit di ko lëññatu ak jëw mbokk yi lañ ko moytu képp tey ku yëkkati sa téléphone yaa ngi nekk ci écoute nañu ragal yàlla nañu ragal borom bi subhanahu wa taala loo féetéerlu loo jéem a jéem munoo nekk yàlla li nit ñi di def ak li nit ñi di wax boo ne danga koy peeg dangay topp nit ñi yow ki koy def yaay far alku yow yaay tolox kooku borom bi subhanahu wa taala moo ko moom bàyyil nit ñi ci seen liberté nit ki li muy def di ko nëbb bàyyi ko bés bu ko fésalee ci mbedd mi nag voilà nga ne ko kaay lu ñett jullit dafa xaraam képp ku ko def def nga lu xaraam wala tajassasu wala tahassasu waay waay waay waay nañu wàññi yooyu topp nit ñi ci ay photo ci ay enregistrement ñu koy génnee di diingat ay nit te li ci ëpp dara nekku ci ndaxte ki la topp di lëññatiku lu bon lay wut waaye mbokk yi lu tax lu baax yi dañ ko fësal man gisaguma lu baax lu ñu fësal de koo xam ne at mi jeex na ñu ne ñii ak ñii ñoo fi nekkoon ñu ne imam bi ak imam bi gàcce galaam nañ ko yóbbu palais am luñ ko tappal parce que wax yi muy wax fi muy delloo nit ñi sëñ daara bii ñaata ndongo la fexe ñu mokkal alquran ci ay góor ci ay jigéen xanaa ñii bokkuñu ci société bi waaye sëñ daara dóor na sëñ daara rey na sëñ daara xusi na imaam wax na lii nangam def na lii maalakum kay fa tahkumuun kon mbokk yi lu ñuy atte lii mooy lan mbokk yi njiit yi nañu ragal yàlla sécurité bi nañu ragal yàlla agent secret yi nañu ragal yàlla nañu maandu ki def lu mu warul def nañu jëflanteeg moom ki def lu baax lu ñuy jëriñoo nañ ko fisal wane ne kii def na lu baax ndax mu nekk royuwaay keneen def lu baax keneen def lu baax waaye yow lu bon rek ngay wut koy toroxal rek ngay wut koy dóor rek ngay wut koy tëj kaso rek ngay wut koy noppiloo rek ngay wut borom bi subhaanahu wa taala moom moom adduna bii ku gem bu ne day def loolu laajal firawna ak xaamaan al haaruun nga xool fan la borom bi subhaanahu wa taala jaar ak ñoom laajal laajal laajal ñi nga xam ne jaamarloo nag yonentu bi sallallahu alayhi wa sallam fa ñu mujjoon foofu ngay mujj li gën a tuuti li borom bi subhaanahu wa taala di def muy toroxtaane def lay rocc ci xolub jullit yi fuñ la tudd ñu xas la ciipatu borom bi subhaanahu wa moo mel noonu kon nañu góorgóorlu di des ci biir xolu nit ñi ndax ñu leen di ñaanal ndax ñuy wut ak sàmmte beneen bi ci tegu mooy ñun ñëpp dañu war a dox ngir bennoo ngir ñu nekk benn ngir ñu bëggante soppante loolu nag mënuñu koo am abadan lu dul dañu bennale suñu delluwaay delluwaay bi bu wuutee rek ñu wuute fokk ñu bennale delluwaay delluwaay bi ñu am ñu koy bennali nag lu lomb la lu fës la mooy alquran ak sunna amul beneen delluwaay buñ ko bennalee rek bennoo buñ ko xajalee rek xajjaloo kon borom bi subhanahu wa taala ci bennale boobu lañu ñu delloo ndaxte ñooy bokk li ñu fas ñooy bokk bëgg-bëgg ñooy bokk li ñuy jëf te ñoo koy jëfandoo waxtu ak place ba ak ba te ñooy bokk lépp lépp ñooy bokk ki ñuy roy ñooy bokk ki ñuy sopp ñooy niroo ci bépp mbir melokaan boobu mooy tax julli di nekk benn ñu sori ci teqale ko ci wuutale ci xiiroo ci ŋaayoo loolu ñu dal di ko sori ndaxte lool la ñu borom subhanahu wa taala dig waxtasimu bi hablillahi jamian wala tafarraqu maa huwa hablullah laa ilaha illa allah yéen ñépp dellu leen ci buumu yàlla bi ngeen moy ci waay waay bu leen teqale ko buubug yàlla boobu mooy laa ilaha illa këpp ku ko wax rek mbokk nga bu xesee nekk mbokk moomu rek nag na nga xam ne kullul muslimi alal muslimi haram maaluhu wa damuhu wa irdu këpp ku ko wax rek na nga xam ne xaraam na ci yow nga yegg ci deram mbaa ci deretam mbaa ci moomelam kon loolu day indi ñëw ñun ñépp ñu nekk ci mbir moo xam ne mbir mu jaar yoon la kon képp koo xam ne dégg nga dara ci sa mbokk jullit dalal teeyal weddil nëbbal sàngal sutura ndaxte loolu nga bëgg borom bi subhanahu wa taala defal la ko beneen bi ci tegu mooy ñépp nag war nañu naqarlu war nañu ñaawlu li nga xam ne mu ngi xew fële ci Palestine li nga xam ne yahud yi ñu ngi koy def ci Palestine assahaayina xool benn benn peuple rek dal di ko singili xañ ko jàmm nangu réewam xañ ko jaamu yàlla nekk ci ay fitna ci dàq ci rey ci tëj ci sonnal loolu yépp adduna di ko di ko seetaan mu ngi ni organisme international yépp mu ngi ni dañu dañu ànd rek dal di noppi naa def le amul kenn ku wax moo xam droit de l'homme la moo xam Nations Unies la bépp bu mun a doon moo xam yeneen organisme interne la kenn waxul kenn yëkkatiwul kàddu coow amul dara amul kon loolu mbokk yi war nañu ci bàyyi xel de loolu lan moo ko indi ndax peuple palestinien dañu nekkul ay nit ndax dañu tooñ ndax dañu yeeyoowul ñu jàppale leen ñaanal leen bopp kon mbokk yi nañu xelaat ci anam yooyu bàyyi xel kon bépp organisme bépp imaam bépp sëñ daara bépp nit koo xam ne bu yëkkatee sa kàddu ñu dal di ko dégg boo mënul yëkkati sa kàddu boobu ñaanal leen ñaanal leen boobu foo tollu nga leen di ñaanal di ñaan borom bi subhaanahu wa taala kon yal na leen yàlla xett li xett li beneen bi ci tegu mooy nañu yitte woon ndaw yi moo xam ay góor la moo xam ay jigéen la jafe-jafe yu ëpp mu ngi génnee ci ndaw yi ndaxte dañ leen a sàgganee dañ leen a sàgganee lu leen di yàq rek la ñu bàyyi ñoom ñu koy dal di def amma li leen di defar delloo si leen former leen jàngal leen ni ko yonent bi sallallahu alayhi wa sallam defee woon ba mu uusikum bi sababi xayra dénk naa leen ndaw yi na ngeen fexe ab yiw nekk ci kon ndaw yooyu nañ ci bàyyi xel bàyyi xel bi nag mooy tabaxaat famille te gis nañu ñun dañu tas famille léegi dañuy commencé di di di di bañ famille kuy am soxna sax mu ne damay wuti appartement lii bokk na ci na yi nga xam ne góor gi jigéen bi bu ñu wutee amul kuy wax bàyyi nekku fa yaay nekku fa bàjjan nekku fa njëkke nekku fa kenn nekk fa yéen ñaar doon ak ay xale kon xam nga ne loolu du sotti kon famille boobu ñu tas moo indi jafe-jafe yi nga xam ne gis nañ ko ci xale yi kon nañu delluwaat ci famille nañu delluwaat ci yaraat njoboot gi nañu delluwaat ci defaraat école yi ndaxte foofu mooy yaruwaay defaraat école yi ki nga xam ne day jàngale mu nekk as-salih al day nekk ku baax kuy def ku defaru day di defare mais boo seetee léegi da ngay gis ne da ngay gis ne doy na waar nañu defaraat jàkka yi imam yi dal di taxawaat ci jàngal nit ñi jubbanti nit ñi presse yi nañu ragal yàlla li ñuy wax nañu ragal yàlla li ñuy wone li ñuy bind te wóoru leen wala bu leen wóoree sax lu bon la lu tax ñu koy kii xanaa ñoom du ñu fàttaliku jugement ëllëg yawmal qiyaama lépp loo bind am na malaaka bu ko bind lépp loo partagé lépp loo wone lépp loo def mustata te bés penc boo faatoo rek malaaka bi ni nii borom bi subhanahu wa taala haza ma la dayya yàlla lii nga ma dénkoon kon yéen ñi yore presse bi am ngeen njariñ de waaye yàq ngeen lu bari kon na ngeen bàyyi xel ki ngay dékk micro xamal kii mooy kan mais waxkat lu bon kenn du ko jox mikoro kenn du ko invité caaxaankat taaxuraankat rawatina ci weeru koor ngay saboote di def ay musiba di wax ay toj-toj te ñi ko wër yépp kenn mënu koo jubbanti mbokk yi ni ngeen di def ci mbiru technique économie bu ngeen ci wax dangeen invité koo xam ne da jàng économie ku fa wax dara mu mun a wax joxe ay argument lu tax na bu ngeen di invité ci diine dajale ñoo xam ne kenn mënu leen delloo si mais jël leen ku jàng diine xam ko saytu ko ñu seedeel ko ko nga teg ko fa lu mu fa def mu daj ko lu mu wax mu ne wax waxu dëgg tegoo ko fenn bu jàngee aaya mu jàng ko xam na aaya bi fu mu nekk lu muy firi la bu waxee hadis mu wax ko bu wér la wala bu wérul bu diingatee borom xam-xam mu ne ko waxoo dëgg parce que yow xamoo dara wala boo xamee dara gëmoo yàlla wala baaxoo wala fitna nga bugg wala diingat nga bugg ñu toroxal ko ci kanam ñépp ñu dal di xam loolu loolu buñ ko defoon ni kon caaxaan yi nga xam ne dañ koy def loolu day bàyyi waaye ñun li ñu seetlu ci presse bi seen micro yi néew nañu dégg ko koo xam seedeel nañ ko xam-xam néew na wala buñ la woowee woo ku ku xamul dara borom xam-xam boobu bu respecté boppam day wuyu émission lu mu fay doy ñu boolee la ko ne xamul dara coow rek ak xasteeg saaga mais nañ indi débat bi mu nekk débat xam-xam xam-xam bu leer nga bàyyi sot sotloo bàyyi parparloo bàyyi xiiroo bàyyi ŋaayoo ñu def débat bu leer naññ naññ naññ loolu bu amee rek léegi coow jeex takk yéen presse bi nag yéen a man noonu ay responsable ci côté yu mel noonu kon mbokk yi nañu defaraat taxawaay yi nañu defaraat jikko yi nañu fonkaat mag yi nañu bàyyi xel ci kilifa yi nañu sori lépp luy fitna nañu sori lépp luy réeroo te ñun ñépp nag ñooy responsable yonent bi sallallahu alayhi wa sallam ne na ala kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyati mu ne ñépp ñoom ñooy responsable te ne rek bés peñ ci dinañ la laaj sa responsabilité moom yonent bi sallallahu alayhi wa sallam mu tàmbalee ko ci jamono président de la république fal amir ki nga xam ne moom la ñu tànn jiitu ci heure islam ñu ne ki nga xam ne moom mooy suñu jamono ñu ne président de la république moom mooy premier responsable lépp lu am rek mooy responsable ndaxte moo war a taxaw moo war a addu moom la ñu jox suñu moomeel moom la ñu jox suñu sécurité moom la ñu jox suñu kàddu kon tekkeeral ay fitna di am ay musiba di am mooy responsable te yawmal qiyaama yonent bi sallallahu alayhi wa sallam mu ne responsabilité boobu dinañ ko laaj parce que dañ ko sàmmuloo nit ñi ak seeni am-am ak seeni sécurité mu dajale seeni moomeel mu partagé ko ci yemale ci njub ci maandu. loolu mooy loolu président de la kon loolu la yonent bi sallallahu alayhi wa sallama tàmbale kon bés benn ci dañ ko koy laaj kon mu ne bépp nit responsabilité la ci njobootam njoboot bu ne yow borom kër ga yaay responsable ba jàkka ju ne yow imam ba yaay responsable société bu ne yow njiit la yow yaay responsable kër gu ne ci biir kër ga yow soxna si yonent bi sallallahu la wa sallam mu ne yow yaa yore responsabilité bi te yawmal qiyaama dañ la koy laaj lépp loo ca defoon lépp loo ca wéerewoon kon mbokk yi ñun ñépp nañu jël suñu responsabilité defaru di defare baaxal am yéene sellal maandu di nëpp lu bon lu bon dañ koy nëpp te doomu adama bu dee juum kilifa bu juumee dañ koy nëbbal lu bonam duñu ko partagé topp ko muy juum di def nangam ak nangam boo ko xoolee ci réseaux sociaux yi mais vraiment daw na yaram kilifa bu mënul jàng alxuraan di jàng di juum di def ay musiba ngeen koy dugal ci réseaux sociaux yi muy juum di dellu si waat ngay dellu di dellu si waat nit ñi di xaqataay ngeen foog ne loolu jàmm la loolu du jàmm de ndaxte kooku ngay diingat suñ ko xeebee réew mi yàqu su waxee ñu bañ koo def réew mi tas parce que liy defar réew mi mooy njiit bu waxee ñu nangu bu nee def leen ñu def bu nee tere leen ñu bàyyi donte arrangé la yonent bi sallallahu alayhi dem na ba mu ne bu jëlee karwaas dóor la na nga parce que loolooy jàmm boo résister rek musiba am bu nangoo sa alal noppil dem liggéeyi yeneen lii la ñu yonent bi sallallahu alayhi jàngal waaye nag ban kilifa encore ban kilifa encore bu fekkee kilifa bi nga xam ne li nga gëm lay xeex li nga gëm lay daj danga koy bàyyee constitution bi mu tëral du moom moo ko tëral am nga àqu mars am nga àqu bañ am nga àqu diinga am nga àqu yuuxu problème am rek ñu jàmmarloo islam xamul loolu islam day xam kilifa bu juumee nañu nëbb nëpp nëppal am ku dem ca moom wax ak moom ndànk ci pet lii du nii mu defar affaire ba dal di jeex kon mbokk yi képp ku wuuteeg islaam rek fa inna lahu maishatan danka dangay am dund boo xam ne bu ñagas dund bu méttee métti fa ñuy jeexalee ngir ñu am jàmm dal di déggoo mooy sunnag yonent bi sallallahu alayhi dañ koy jox àqam manoo dégg alquran jaaroo ci sunna manoo julli te jaaroo ci sunna yàlla lan la ñu wax aqimi salaa nooy jullee lu tax ngay yenu tisbaar ak takkusaan lu tax lu tax mu nekk ñeenti tax ngay biral timis ak gee lu tax mu nekk ñaari rakka ba ñetti rakka loolu sunna moo ko leeral ki nga xam ne borom bi subhanahu wa moo ko yónni génneel asaka ñaata ngay génne ci lan ngay génne loolu mënuloo koo xam ay yu bari bu yàqoo noo koy defaree mënuloo koo xam kon yooyu boo ne dangay écarter sunna wala dangay soofantal téere yi nga xam ne moo leeral sunna waxu yonent bi sallallahu alayhi ci ay règle yoo xam ne yu leer la yu xam-xame la benn waay toog fee rek di sabote naan nangama nangam fenu kese la naru kese la inna lillahi wa inna ilayhi rajiun te nit ñi toog rek mel ni dara amul mel ni dara amul yaa axi boo màbbee téere yooyu nga dal di màbbu sunna lan moo fi des yonent bi sallallahu alayhi wa sallam mu ne bu jàttal jamono dina ñëw nga gis benn waay bu lekk ba suur jaaxaan ci kaw piliyaanam naan man daal li ma leen di wax man moom alxuraan rek lépp lu ngeen gis ci alxuraan ci lu dagan daganal leen ci lu xaraam xaraamal le yem leen foofu yonent bi sallallahu alayhi wa kooku alku na kooku torox na ala inni uutiitu alqur'ana wa mislahuma mu ne man dañ maa jox qur'an ak lu mel ni ma boole ko moom yàlla ne wàccee ci wàccee naa ci yow qur'an li tubayyina linnaasi maa nuzzila ilayhi ngir nga leeralal nit ñi li ñu wàccee ca ñoom kon sunna boobu buñ ko joxul gëddam buñ ko soofantalee ngir ñu am jàmm dina jafe ngir ñu déggoo dina jafe ndaxte ku mu soob day wax lu ko soob mais sunna bi bu ñëwee loo wax ku la ko wax hadis ngay gis yépp boo ci tudd ñu ne la ma sàmba la ma demba la moodu la biraan la ba nga yegg si ci sahaabi bi ñu ne la yonent bi sallallahu alayhi bu amee ku ñu wóoluwul ñu ne hadis boobu day na nga ci teey bu amee ku màgget ba xamatul ñu ne hadisam yi nan ci nan ci teey bu ak koo xam ne xam-xamam bariwul ñu ne nan ci teey koo xam ne kamu nett li bokkuñu jamono ñu ne nan ci teey kon yoon wii la dal di yoon woowu nag lu tax gaa yi bëgg koo màbb pour ku jóg rek wax ko neex dootuñ dootoo am foo ko teg dootoo ko mën a gëstu loolu nag ñi gëm yàlla duñu ko nangu ñi moy ci téere yàlla bi duñu ko nangu duñu ko nangu tey duñu ko nangu suba li gën a tuuti li ñu man mooy heure bi yàlla di wàcc ci asamaanu dunia ñu jàpp julli ay rakka jàkkaar ko borom bi subhanahu wa taala ku leen tooñ ñu kalaame ko ci borom bi subhanahu wa loolu moom man nañu ko te loolu in bi isinillah képp koo xam ne diine ji suxal na la képp koy saboté diine ji danga ñaan borom bi subhanahu wa na ko jubal su fekkee ne borom bi gis na ci xam-xamam ne jubul na ko toroxal na ko toroxal na ko alak na ko weer ba ñëpp xam ne musiba bii la def fitna bii la def kon julli bi yëpp nañu jublu ci anam bu mel noonu bàyyi xel xam ne sunna sunna ku bàyyi sunna sonn kon nañu moy ci sunna ngir ñu noppalu allahumma afir lana warhamna allahumma akrimna wala tuhinna allahumma la tajal fi maqamina hadha dhanban illa ghafarta wala hamman illa farajta wala karban illa nafasta wala daynan illa qadayta wala maridan illa shafaita wala dallan illa hadaita wala jahilan illa allamta wala faqiran illa aghnaita wala ghaniyan illa barakta lahu fi ghina ya rahmanu ya rahimu ya dhal jalali wal ikram allahumma inna nasaluka alxayra kullah wa nauzu bika min alcharri kulli allahumma inna nasaluka al amna walsalamata addaimatayni bi rahmatika ya arhamar rahimin allahumma salli ala nabiyina muhammadin wa sallama taslima subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun ala almursalina walhamdulillahi rabbil alamin